yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa ci le 29 jeudi le 29 août le directeur des affaires politiques Merlin ça c'est très important dañ cee war a bàyyi xel surtout les intellectuels mourides li ñu nu woon ni c'est le procès verbal du conseil privé du 5 septembre 1895 c'est pas vrai un procès verbal se fait au moment des faits procès verbal bi xew-xew yi di xew la ñu koy war di bind waaye rapport bu ñu bind une semaine avant jeudi le 29 août 1895 le directeur des euh, des affaires politiques Merlin ci la bindub rapport am jeudi ba bis ba dellusee le 5 septembre 1895 bi juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba ci la ñu dugal sëriñ bi ci bureau gouverneur bi sëriñ bi ñëwee fekk na juróom-ñeent yi nga xamante ni ñoo composé conseil bi te ki ko jiitee di gouverneur Moutet. juróom-ñeenteel ba di le secrétaire archiviste di Superville ba ñu dajee ñu daal di dugal le directeur des affaires politiques Merlin Merlin ba mu ñëwee lan la def la mu bindoon une une semaine avant loola la jàng ca jeexal ba mu wax ci ni Cheikh Ahmadou Bamba gisuñu luñ koy toppe waaye dama bëgg ñu yóbbu ko Gabon ba nga xamante ni kenn du ko fa gëm. ba li mu doon woote ñu fàtte ko maa ngi ñaan yow gouverneur nag lii ma wax ngeen ànd ceeg man conseil ba ñépp signé ñu daal di wéyal lool boo déggee nag ni ñuy nettalee bureau ba ca ndar am na koo xamante ni nekkatul du ma tudd aw turam ndax ab taalibe la te nekkatul waaye moo daan wax war ma warama dunyaaya ma diini warama uxraaya wasitam tiini nee na loolu la fa sëñ Tuubaa daa doxe nee na le gouverneur Paul Marty moo woo Serigne Touba ba mu ñëwee mu ne ko anna mu dabbiru umur alors que Paul Marty bi ñu jëlee Serigne Touba au mois de janvier 1912 ci yeen Jolof indi ko boqaatul mubaaraka di njaareem bañ ci tegee fukki weer au mois d' octobre 1912 la ñu jël Paul Marty indi ko Sénégal takkal ko ndomb ak tànk sur mesure boo xamante ni musta am mooy lan mooy le directeur des affaires musulmanes. parce que moom c'est un français ndeyam tubaab la baayam tubaab la waaye Algérie la juddoo fa la jàngee maîtriser arabe maîtriser diine l'islam Algérie la juddoo Tunisie la faatoo moom moomu bokk na ci noon yi gën a noonu Serigne Touba ndax moom def doon bind yéen ñëpp gis ngeen ay xasida yi ñuy duural Serigne bi madame Ponti Bouchra ak yooyu yëpp moom avec la complicité. du gouverneur du, directeur de madrasa de Saint-Louis ñoom ñoo doon bind xasida yooyu di ko moomale sëriñ Touba ngir bëgg koo taxal waaye sëriñ Touba kenn mënu koo gàkkal ndax bu ñu imité mbindam itam boo xoolee ndañu koy signé nga xamante ni kii lii Serigne Touba bindu kon ngir dellu siwaat ci bureau boobu ci Ndar ñuy wax ni juróom-ñett fukki Serigne. ak ñeent ñoo fa dajoon ma ni loolu nekkul Serigne Touba moo doon numéro 4 ma ni loolu nekkul Serigne Touba benn yoon lañ ko mas def ci list bopp dañu ko numéroté te loolu c'était en 1916 bi tubaab yi demee ba di ko proposé médaille boobu ñuy wax légion d'honneur mel ni ku ko bëgg neexal te sëriñ bi gàntal ko te bërki démboo rek ma gis sit bu ko bind di wax ni Serigne Touba murid yi dañu wax ni. nanguwul légion d'honneur ba te nangu na ko ba sañ Cheikh Sarr la ko joxoon sëñ seex Sarr daa ko takk di ko tiitaroo te loolu teguwul fenn site bu ñuy wax euh, Séné métis wala Sénégal métis ñoo ko bind kon tubaab yi moom moomu di Paul Marty moom moo constitué woon bopp sëriñ sañu woowoon ndar ñenn ci ñoom mu constitué conseil consultatif bopp ñaar fukki nit la ñu woon ni leen léegi yéen yéenay saytu diine lislaam ji nekk ci AOF soo demee Serigne Touba moo cay numéro huit waaye moom musta wu ci seenum ndaje musta génn njaareem musta participer itam ci seeni réunion kon Serigne Touba man de 41 naa ngi nii may def ay recherche depuis 1978 waaye foofu laa gis fu ñu numéroté Serigne Touba. bureau ba ca ndar itam mennum Serigne Touba moo fa doon nit ku ñuul ak l'interprète bi ko doon interprété ndax dañoo wax ni sëriñ bi dafa teew ñu ne xaw ma boo signé yàlla amut yonent bi amut lislaam gént la xaw ma ñu jox leen xamar jox leen dawalu kël boog yu kenn xamut ñu ni ña nga xamante ni dañoo njëkkoon a weddi ne duñu signé dañ leen a boole gaynde gaynde yi xéewloo leen kañ ca njëkke mooy sëriñ ndaam sëriñ Balla Coket Lo sëriñ Balla Coket Lo waa kër Ahmadou Cheikhou ñoo ko faat ci nekkuk Ahmadou Cheikhou Ahmadou Cheikhou mu ngi daanu ci le 15 février 1875 la bataille de Samba Sadio kon Ahmadou Cheikhou xeex na Samba Sadio ñu teg te ñaar fukki at ñu doog a convoqué sëriñ bi Saint-Louis waa koo xamante ni ci dunduk Ahmadou Cheikhou nañ la faatee nan ngay mën a teewe ca bureau ba ca ndar en 1895 bañ lay jox gaynde keneen ki ci des sëriñ Moussa Ka nga mu ni sëriñ sëtu Maxtaar Ndumbe ma sancoon kokki Ahmadu Aminata ñoo ko sànq sëriñ Ahmadu Aminata Diop la ñuy wax ni mooy ñaareel ba te moom ak maami Cheikh Moustapha al Karim di sëriñ Maxtaar Bintaloo sëriñ Maxtaar Bintaloo au mois de mars 1858 bi nga xamante ni Léon Diop tubaab yi jàpp nañ ko mu dem làqatu ji Ñomre ñu wax sëñ Ñomre ni ko da nga nuy jox Léon mu gàntal au ci weeru mars 1858 ci la Faidherbe bu waajal ab xare ngir dem songi Ñomre xeex boobu moom Faidherbe bu nee na xeexub Ñomre bi li ko ci jaaxal amoon na ñu doon xeex ñoom tubaab yi invisible maanaam waaye ñoom rek amoon nañu soldat soo xamante ni àndoon nañoo ñoom ci xeex bi te ñoom tubaab yi daawuñu leen gis xeex boobee nag ca la ñu wax ni loolu lépp tafsir maxtar bintaloo moonu ko yóbbee ba tax ñu jàpp ko boo demee ci journal bu ñuy wax le moniteur du Sénégal te génnoon ci 1864 ña nga cay wax ni tafsir maxtar loo ak sëriñ Ahmadou Aminata Diop ñu ngi leen tëjoon fii ci gore Gorée lañ leen jële dugal leen ci bato yóbbu leen ba léegi kenn xamul fu ñu leen yóbbu loolu moo tax suñu mbokki géwél yi di wax ni tafsir euh, Matar Bintaloo ma ca mbeex ma kon ñooñu bu ñu waxee nii defe naa 1864 sore na lool ak 1895 kon mbir mi nañ ko teg ci un plus 1 mënut a doon 3 un plus 1 2 rek la mën a doon kon. bureau ba ca ndar li nga xamante ni le 5 septembre dafa mel ni da doon ndaje moom dañoo xëy di ko ndaje ba ca ngoon déedéet tur genre tribunal la woon boo xamante ni keroog ñeenti mbir la ñu waroon a atte mbir ma ca njëkkoon mooy mbirum Serigne Touba 9h lañ ko tàmbali 11h30 la jeex ñu génne Serigne bi bureau ba génne le directeur des affaires politiques dal di woo ki nga xamante ni bii moo doon le directeur des affaires indigènes. ngir budget bu ñu waroon a wote keroog kon ñeenti mbir lañ fa waroon a waxtaanee wala ñeenti mbir lañ fa waroon a attee bopp sëriñ bi da caa njëkk ñaari waxtoo genn wàll la gannaaw ba ñu taj ca ñeneen ñettee ca desoon doog a jeexal jataay ba loolu la bëggoon a leeral kon nañu jàpp ni conseil privé bu 5 septembre am na ko ma doon wax naa ma lu tax tubaab yi binduñu ni sëñ bi julli na ci ca bureau ba ma ne leen mënu ko mënuñu ko bind ndax ñoom ba ñu bind seen rapport boobu sëñ bi ñëwagul ci bureau bi le 29 lañ ko bind kon li xew le 5 mënuñu ko bind waaye dañu xam ni le 5 septembre mbirum Serigne Touba la ñu njëkk a atte bu ñu ko mënee tuddee ab atte 9h ci suba la tàmbali ba 11h30 mu jeex ñu jàll ca ñaareel ba mu jeex ñu jàll ca ñetteel ba mu jeex ñu jàll ca ñeenteel ba mu jeex ñu yëkkati jataay ba le secrétaire archiviste. di Superville ñeenti mbir yañ fa wax yépp benn bu ci nekk bind na wax nu la nga xamante ni bii moom la ñu fa doon atte kon loolu mooy li nga xamante ni bii moom laa bëggoon a indi ci bureau bi ci Ndar nga xamante ni bii façon bu nekk danañu nu ko waxee waaye e, gouverneur Mouté mi nga xamante ni moom moo doon assurer intérimu gouverneur général moom déggul woon arab bay wax sëriñ bi ana mu dabbirul umur kon am na ñoo xamante ni bii ñoo daan waxtaane taarixu yoon wi dem ba indi fi loo xamante ni bii kenn ñi metu ko wet dafa dem ba mel ni alxuraan ci nun que sëriñ bii moo doon numéro Ahmadou Bamba numéro 4 juróom-ñetti fukki sëriñ ak ñeent te loolu day mbindum tubaab mi nga xamante ni bii ñoom ñoo doon jëf-jëf ya ma yor ko loolu moom man gisuma ko ci sëriñ Fallou dafa wax léegi lu am solo ci bi sëriñ bi jógee ba dem Gabon sëriñ bi mason nay wax ak aw nit ba naa natt yiñ ma teg li mu sóoratul ni lañ teg sëriñ Touba ma ñëw rek ci maa yomba googa nga xamante ni sëriñ bi def na fa juróomi at ab tableau ngi nii ndax sëriñ mu Ka dafay wax ni foofee la taw teewoon ba yol suuxal ko moo yéreem ya diig ca wal lu dul kitaabullahi fi quraan tooy na keroog ba yàqu ba mbay waane kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu walilaahi bihi sakkantu moom la waxoon keroog ba muy fatamtu bayit wi moom ak xasidaak jaawartu kon sëriñ Touba ni ko sëriñ Fallou bu sa tàmb waxee bi mu eggee octobre wax nañu ni ñetti at la def Mayumba transité euh, fi nga xamante ne bii mooy Cap Lopez ñu yóbbu ko Mayumba Mayumba nag sëriñ bi amu fa woon am néeg mbaar la fa amoon waaye ñetti at yi nga xamante ni moom la fa njëkk a def 1896 1897 1898 lii la fa taw. weeru janvier wa fukki fan ak benn la taw ca weer wa ñaar téeméeri millimètres ak fukk ak juróom benn la taw ci weeru janvier weeru février fukki fan la fa taw téeméeri millimètres ak ñaar fukk ak ñeent fukk juróom ñaar la fa taw weeru mars fukki fan ak ñett la ca taw ñaar téeméeri millimètres ak ñeent fukk ak juróom ñeent la fa taw weeru avril fukki fan ak ñeent la fa taw ñetti téeméeri milimètre la taw yu tombal ñaar fukk ak juróom-benn weeru mai juróom-ñeenti fan la fa taw téeméeri milimètre ak juróom-benn fukk ak juróom-benn la fa taw xam ngeen di Gabon seenum noor mooy weeru juin juillet ak août weeru juin benn fan la fa taw zéro virgule sept milimètre la fa taw juillet benn fan la fa taw cinq virgule six milimètre la fa taw weeru août ñeenti fan la fa taw ñaar fukki milimètres yu tombal juróom la fa taw. weeru septembre fukki fan ak ñeent la fa taw téeméeri millimètre ak juróom-ñeent fukki millimètre ak juróom-ñeent yu tombal juróom-ñett la fa taw weeru octobre ñaar fukki fan ak ñeent taw na ko fa téeméeri millimètre yu tegal juróom fukk ak benn la fa taw weeru novembre euh, ñaar fukki fan ak ñett la fa taw taw na fa ñeenti téeméeri millimètre ak fanweer yu tegal juróom weeru décembre fukki fan ak ñeent la fa taw taw na fa ñetti téeméeri millimètre yu tegal fukk ak ñaar yu tombal ñaar nga xamante ni at ma taw na ko ci kaw ku tedd ki xaadimu ci Ahmadou Bamba deux mille cent quatre-vingt-douze millimètres virgule zéro ñaari junniy ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar moom la taw ci kaw koo xamante ni amul woon néeg mbaar rekk la amoon te Sénégal bu fi tawoon juróomi téeméeri millimètres àddina tukki kon taw boobu sëriñ mu Ka doon melal at moomu taw na ci kaw sëriñ bi ñaari junniy millimètre ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar euh, waxtu yi moo nu ko mayul ndax noo ngi woon fii ak rimub raamat yi nga xamante ni ñoo fa nekkoon muy ay jaan ay jiit ay jargoñ ak li ñuy wax mille pat te mooy Euh, euh, jalaal yoo xamante ni raamat yooyu yëpp benn bu ca nekk amoon nga dangar yoo xamante ni bii moo jaan ñoo yem ku mu mat dangay ngay tubaab yaa ngi wax ni vipère ya fa nekkoon muy jaan yooyu am nañu sell yoo xamante ni bii say dàll lu mu dëgër dëgër buñ la mattee mu jàll te ku tedd xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba kenn waajalu ko woon lool ci loolu dara garab ya nga xamante ni bii seen dëgg ya seen xob ya fu mu la jam eh, eh, nu mu tuddati yooye nga xamante ni bu ñu la mattee da ngay nelaw ba faatu te ñoom ñoo wax ni am na fa ay mbindeef yu fa nekkoon yu daan jëfandikoo doomu aadama nee nañu mbindeef ya la leen wuutale ak doomu aadama mooy amuñu am tës seeni tànk ak seeni loxo nooyam foofee fa la ñu sëriñ bi bëggoon na ma jàll waaye mel na ni eh, sëñ Mamor kon maa ngi jéggulu bu baax a baax a baax waaye maa ngi dellu ñaaxaat murit yi sunu taarix kenn nu ko bindal sunu taarix kenn duñu ko bindal Cheikh Mahamadul Bachir bind na sëñ Mahamadou Lamine Diop Dagana bind na sëriñ Moussa Ka bind na génération bi fi nekk xam-xam baa ngi fi nanu jël la mag ña bindoon gëstu boole ci bu nu xaar kenn dinu bindal sunu histoire wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. منك يا من جل أن خاد ارحم جميع الراد